أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci suratu tawba ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala tey ñuy jël benn aaya muy aaya 70 77 67 aaya 67 moom la ñuy jël tey benn aaya bi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala di ñu ci jàngal ñaari mbir ba ca jiitu mooy innal munafiqin lamma kaana maraduhum wahid wa huwa alkufru albatini kaana sulukuhum mutashabiha danañ jàng tey mbooloo mi yàlla tuddee ay naafiq li tax ñu nekk ay naafiq nag mooy ñoom seen feebar benn la maraduhum waahid feebar bi lan la mooy ak kéeféer mooy nëbb kéeféer feeñal ngëm loolu mooy feebaruk naafiq loolu moo nekk ci seen comportement moo tax ñoom ñëpp ñu nuroo naafiq yëpp benn bopp lañ yaakaar naa xam nañ lan mooy naafiq naafiq mooy koo xam ne dafay wane ne moom gëm na yàlla ci làmmiñam waaye xol bi kéeféer moo fa nekk naafeq googu nag ñaar la an nifaaqu nawaan naafeq ñaari façon la am na ci goo xam ne yuxriju min al milla daf lay génn ci l'islam complètement am na ci boo xam ne daf lay génn ci l'islam te nag boobu mooy bu dangereux bi ñaar yëpp benn baaxu ci waaye benn bi moom saa yu la dalee mooy génn nga ci lislaam beneen bi moom du génn nit ci lislaam waaye dina la yóbbu safara ñaar yëpp kon benn baaxu ci li jaadu mooy ab jullit feebar boobu dig nifaaq mu fexe ba mu denc ci xolam ba mu set wicc mu xeex ak boppam ba loolu denc te loolu ci sunu jamono bi daa bëri ay nit yoo xam ne dañuy feeñal ngëm waaye ci seen biir kéeféer moo fa nekk seeni wax da ngay gis dafa wuuteeg seeni jëf seeni melokaan dafa wuuteeg la ñuy wax te chaque jour ñu ngi lay wan ne ñun ay jullit lañ gëm nañ yàlla yonent bi nag la ko ci muccaloon mooy yàlla tabaraka wa taala ndax moo ko xamal diw ak diw ak diw ak diw ay naafeq la ñun nag kenn mënu cee xam dara moo tax yàlla rek moo ñu ciy musal ndax mën ngaa dëkk ak am naafeq mën ngaa am doomu naafeq mën ngaa am jabaru naafeq mën ngaa am frère naafeq mën nga mën nga mën nga mën nga mën nga yàlla tabaraka wa taala rek moo xam yal nañu yàlla setal yal nañu yàlla fóot waaye jikko joo xam ne melokaan boo xam ne tiitloo woon na Umar ibnul Xattaab ñun war na noo rey melokaan bu tiitloo woon Umar ba du nelaw guddi ñun melokaan boobu war na noo rey mbokk yi tey naafeq dafa bëri fu nekk lay nekk ci ay jikko ci ay melokaan ci ay jëf ci xalaat ci lépp moo tax ñu war a mooy tëndiku naaféq du lenn lu dul li nekk ci xol bi dafa wuuteeg li ngay jëf jeex na moo tax bilaal bi ko umaya doon dóor naan ko weddil yàlla waxal hubal mu ne ko su ma ko waxee sama làmmiñ day wuuteeg sama xol allahu akbar mënuma ko wax loolu day diis ci man su ma ko waxee làmmiñ bi day wuutee xol bi saa yi làmmiñ bi wuutee xol bi rek nifaaq am na mënoon nëbb ci xol bi laa ilaha illallah làmmiñ bi di génne leneen lu dul loolu tey nag loolu mbokk yi dafa fees ci kaw suuf l'islam bi tey li ko yàq mooy nifaaq mooy ak naafeq ñoo xam ne li ñuy wax gëmuñ ci dara même seeni jëf sax gëmuñu ko waaw dañuy wax rek ngir poñetu àdduna wala dañuy wax ngir ay intérêt loolu muy lu jara mooy tandiku ku mu doon ci ñun bu yeboo nga xeex ak sa bopp ba nifaaq génn ci ñaareel bi mooy al amru bil maaruf bil munkar al amru bil munkar wa nahyi anil maaruf alaamatu nifaq naafiq bokk na ci melokaanam foo ko fekk lu bon lay digle lu baax lay tere lan moo war a nekk melokaanu jullit mooy digle lu baax tere lu bon naafiq nag foo ko fekk lu bon lay encouragé di tere lu baax loolu tey boo ko doon natt ci société bi ah xoola ay ay ñu ne ay julli lañ di tere xiyaamul layli te nee na ñoom jullit lañ ñooñu ay la lañ kii ne man jullit laa waaye day tere muuraay ci biir këram kii ne man jullit laa waaye day tere doomam mu dem jàkk kii ne man jullit laa waaye fii kenn du fi julli te jullit waaw ñun ñëpp ay jullit lañ nañ bàyyi bañ wàcc suñu kër yi rek ñu julli waaw fii moom kenn du fi julli te nee nañ jullit lañ léegi li ñooñu loo leen di tuddee foo fekk ak naa fekk lan mooy melokaanam mooy yaamru bil munkar lu bon dong lay digle ba pare wa yanha anil maaruf lu baax mu ne kenn du ko fi def loolu melokaanu naa fekk la mu ne wa zahiratul kufr waaye phénomène la boo xam ne day feeñal kéefir tey ci Sénégal suñ ne woon nañ àtte wa sharia ci la ñu xam naa fekk yi anañu nag billahi lazi la ilaha illa huwa suñu xëyoon ne dañuy voté élection dañuy àtte l'islam wala duñu àtte woo l'islam ñu ubbi urne yi kon de bu ngoonee ñëpp rus di nga ran benn urne boo xam ne benn salle boo xam ne di nga fa ran fii ba waaye cey bu ñu yullee kees gi nga gis kenn moo naan wii ñi ci des ñëpp noo ana diine islam moo tax l'islam du ay waxi kese l'islam jëf la arab yi ba ñu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñun gëm nañu yàlla dugg nañ ci l'islam di won yonent bi loo xamante ne du dëgg yàlla mooy intervenir ne qaalatil arabu aman na yàlla ne leen qul lam tuuminu allahu akbar gëmu leen waaye nag mun ngeen wax ne dugg ngeen ci l'islam waaye wala maa yadxulul iman fi qulubikum mën ngeen ne dugg ngeen ci l'islam mais instant yi gëmu leen yàlla nekk amu leen ngëm te pourtant nee nañ ñun kat gëm nañu yàlla allahu akbar xoolal rek su fekkoon ne du yàlla moo ko weddi kan moo ko ñemee weddi nit ñëw ne la man gëm naa yàlla ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nga ne ko yow yéeféer nga moo tax yàlla rek a xam yaalamu rabbukum aalamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina moo tax yàlla rek a xam mu ne wala tuzakku anfusakum bu leen setal seen bopp huwa aalamu bi man ittaqa yàlla moo xam ñi gëm yàlla allahu akbar xoolal ñi waroon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ñu mel ni ñu sellee ni ñu baaxee xayru naas yàlla duut leen baaraam ne leen ne yonente bi ñii wër la wa minkum man yuridu dunia am na ñoo xam ne adduna dong moo leen fi bàyyi man bi ma jàngee aaya boobu laa faju mbooloo yéematuma nit yéematuma aaya boobu moo ma faj ba lu ma tax su ma ko déggatee ci nit du ma jaaxale du ma du ma teg problème lu tax ñi gën a baax la yàlla duut baaraam ne yonent bi ñi la wër ñoo ñu toog noonu borom sikkim yooyu ah ñii nangam nangam ñii ngay àndal fii am na ñoo xamante ne adduna dong moo leen bàyyi ci sawet adduna kese kon jeex na bu ñu kenn yéemati waaw yàlla rek moo fi nekk yàlla dong keneen ku nekk mën ngaa xëy tarxiis dugg ci mboy mboy gi yal na nu yàlla aar kon mbokk jullit yi su fekkente ne tënk nañ sunu aaya bi danañ fekk li mu nuy jàngal mooy ak naafiq waaye li mu ñuy jàngal mooy melokaanu naafiq sunu borom subhanahu wa taala moo ci aaya bii di aaya 67 mu ne almunafiquna walmunafiqat baaduhum min baad yamuruna bilmunkari wa yanhawna an ilmaaruf sunu cheikh bi ñëw na wa yaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fa nasiyahum inna almunafiqina hum alfasiqun وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم naara jahannama xaalidina fiha hiya hasbuhum wa laanahum allah wa lahum adabun muqim mu nekk ñaari aaya aaya 67 aaya 68 borom bi nee na almunafiquuna naafiqi yi man humul munafiquun ñan ñooy naafiq yi allazina yuzhiruuna lilmuminina al iman bi alsinatihim wa yastaruna al kufra fi qulubihim ñi nga xam ne dañuy feeñal ci kanamu jullit ñi ngëm ci seeni làmmiñ foo leen fekk ñoo la dàq tudd yàlla ñoo la dàq jàngal Qur'an ñoo la dàq wax la ilaha illallah suñuy wax ñépp leen di yéem waaye seeni xol dañ fa nëbb naafiq wa ida laqu allazina amanu qaalu wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna maakum innama nahnu mustahziun loolu mooy seen melokaan ah saa ñu dajeeg jullit ñi ne ñun jullit lañ gëm nañ yàlla waaye bu ñu dajeeg naafiq seen morom yi daal ne moo ñun dañ doon sóob rek xam ngeen yéen ñun lañ ànd yéen lañ àndal yéen lañu faral loolu musiba naaru laay weesu loolu naafiq yi bu leen fàtte ne yàlla dafa wàcce ci ñoom aw saar bu wër sëkk ñu tuddee ko suratul munafiqun yàlla ne iza jaaka al munafiquna qaalu innaka wallahu yalamu innaka la rasulu waaye wallahu yashhad inna al munafiqina kazibun naafiq bokk na ci melokaanam mooy moo fi dàqawaat foo ko fekk billahi wallahi wa rek yàlla mu ne ittaxasu aymanahum junna maanaam waat yooyu ñuy waat dañ koy def barrière pour doo am loo wax xam nga ngay wax ak nit mu ne la billahi jullit laa loo ci mën noppi nga yàlla nee na naxaat waat yooyu la ñuy naxaatee pakk lañ koy def ittaxasu aymanahum junna fa saddu an sabilillah innahum saa ma kaanu malun zalika bi annahum amanu summa kafaru fa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun xam nga lu garaaw ci naafiq yàlla mu ne wa iza raaytahum tujibuka ajsaamuhum allahu akbar soo leen gisee ak ni ñu leeree ah la ñu solak na ñu mel na yaram yi di takkee tujibuka ajsaamuhum waaye wa an yaqulu tasma li qawlihim ka annahum xusubum musamman yaxsabuna kulla sayhatin alayhim yàlla mu ne humul aduwu fahzarhum qatalahum allah anna yufakun naafiq baaxul danañ ci yàlla musal sunu borom nee na na nifaq nafiq mooy koo xam ne yuzhiruna lil muminina al iman bi alsinatihim dañuy won jullit ñi ne ñun gëm nañu yàlla ci seeni làmmiñ waaye boo duggee ci xol yi ndeysaan musiba moo fa nekk moo tax yàlla mu ne almunafiquuna ñooy nafiq yu góor yi wal munafiqaat ak nafiq yu jigéen yi baaduhum min baad gis nga ñoo war a ànd ñoo war a sëy ñoo war a bokk mbooloo ñoo war a ñoo war a ñoo war a attention innal muslimina ah gis nga wal muminuuna ba aaya ba jeex waaye wal musrikiina tamit wal munafiquuna gis nga li gën a doy waar yàlla mu ne def ñu ne su ngeen deful jullit nekk jullit ku gëm yàlla ànd ak ku gëm yàlla naafiq ànd ak naafiq bokkaalekat ànd ak bokkala bu ngeen ko deful musiba am ci kaw suuf wal muminuuna wal muminaat baadum awliyaau baad illaa tafaalu takun fitnatun fil ard su jullit yi ànd ak naafiq yi innal muminina wal munafiqaat li xew wal muslimuna wal mushrikaat suratu baqara sax yàlla lim gën a garaaw lim ñu tere mooy jullit bu góor dem takk bokkaalekat bu jigéen bokkaalekat bu jigéen dem sëyëg sëyëg kuy bokkaale yàlla mu ne wala tankihul mushrikaati hatta yu'minna wala amatun muminatun xayrun min walaw ay la yàlla nee na nga dem takk jaam bu jigéen bu gëm yàlla moo gën nga dem takk góor goo xam ne day bokkaale parce que lu tax kuy bokkaale yàlla boo ko takkee mu bokkaale la alors sikki nekku ci jigéen juy bokkaale di gàddu sërëm di dem ci ay buxaaba di dem ci ay sëriñ imagineel ndaw soo xam ne dafa dugg oto Dakar ba Tambacounda lan lay seeti sëriñ pour lan pour ñu njabaral ko mu ñëw sëriñ bi ne ko ah mën naa ko de waaye foog ma seeg yow man yi boobu laa soxla ndaw soosu lu muy def gis nga moo tax ku am jabar yuy bokkaale amoo jabar ni muy bokkaaleeg yàlla la lay bokkaalee sikk nekku ci bul sax sonn yàlla mii ni mu toll ni mu màggee ku koy bokkaale xanaa gis leen góor ñiy bokkaale góor guy bokkaale loo ko wax defal mu def boo ko nee sangool ay nen tojal nen yi ba mu kii nga jamb ko sangoo ko mu def wala xanaa gis leen ñi dem di sulu néew yi xanaa gisu leen loolu kooku tey boo ko nee demal nga sëy ak néew bi ku jig utal néew bu jigéen bu gaañu guddi vendredi nga sëy ak moom nga demal du ko def daf koy def moo tax bokkaale bon kuy bokkaale lu ñu la wax defal da ngay def bu ñu la waxoon léegi bàyyi ba 2 heures du matin nga ñëw ci parking stade bi nga simmee ko def yaramu neen nga sangu ak aaye bi mu sangoo ko moom yoonam nekk ci parce que lu tax lu nekk ci kanamam rek lay xool moo tax bokkaale bon kuy bokkaale bon wax leen ak ñooñu di tafsir foofu al munafiquuna ayuha al ahbab wal munafiqat ak naafiq yu jigéen yi ak yu góor yi yàlla nee na baaduhum min baad ñoom ñoo war a ànd ñoo war a far mutashabihuuna fi itiqadihim ndax ñoo nuroo pas-pas wa qawlihim ñoo nuroo ay wax wa amalihim ñoo nuroo ay jëf fa amruhum waahid seen mbir benn la naafiq bu góor ak bu jigéen a yem naafeeq bu jigéen sax nag moo gën a dangereux bu góor inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bis bu la yàlla nattoo nga am naafeeq bu jigéen sa biir kër kër ga tas na waaw naafeeq ak ab rambaaj gis ngeen waa ji théâtre ba xale yi doon joué waa ji doon jënd ab jaam mu ñëw fekk waa ji di jaay jaam mu gis jaam bu punkal bu jigéen bu ngand njool ba ci kaw xonk cur gaa yi di jënd jaam yi la jaam bi ñu teg ko fee mu ne ko waaw jaam bi nag mu ne ko hee kii de baaxul mu ne man de bëgg naa ko mu ne ko kii baaxul mu ne bëgg naa ko waaye ji ne ko indi dërëm dërëm wala yeneen jaam yi ñu leen di jaay ay junni ay million moom mu ne ko indi dërëm mu jox ko mu jël jaam bi mu ne jaam bi lu tax nga teg ko fi moom jaayoo ko mu ne kii baaxul rambaaj la rambaaj la naafiq la mu ne man bëgg naa ko dinaa ko defar indi mu jël yóbbu këram ba mu demee mu bàyyi ba guddi mu ne ku jigéen ki man de am na lu ma gént mu ne lan la mu ne sa jëkkër ji gisoo ko muy guddee mu ne waaw mu ne mu ngi day booy waaj takk ñaareel te bu takkee ñaareel yow nga torox mu ne ko ah bon mu ne waaw waaw mu wax loolu ku jigéen ki borom kër gi mu bàyyi ba waa ji wàcc mu koy yóbbu reer mu ne ko am na lu ma gént de mu ne la nga gént mu ne sa jabar di la dina la daf laa bëgg a rey te moom moo wax ndaw si kat loolu li la ciy musal mooy waa ji bu tëddee nelaw rek nga fexe nga am ci sikkim bi tuuti nga indil ma ko soo ko indee dina am lu ma la ci defal waa ji takk ñaareel nan laa koy amee mu ne da ngay bàyyi ba mu nelaw xam nga moom day sonn bu gëmmentoo rek nga ñëw dagg tuuti nga indi ba pare mu ne waa ji gént naa sa soxna si yor paaka di la bëgg a rey waa ji ñëw tëdd nelawul di gëmm-gëmmul ne nii rek ndaw si indi paaka bi rek mu ne ko ah ndeg maa bëggoon rey daal di jël paaka bi ne ko dabaj ndaw si ca biir ba mu dee ba pare mu yuuxu nag naa fekk bi ñëw yuuxu ci kaw laa ilaaha illaa borom kër gi rey na mu daw wooyu mbokki jabar ji ne leen diw rey na jabar ji ñooyu ñëw fekk waa ji fa mu nekk ca biir kër ga ñu jàpp ko ñoom it ne ko dabaj paaka ba mu dee mu daw wooy mbokku góor ko ne leen mbokku jigéen ki rey na seen seen doom ñooñu tamit ñëw ñaari famille jàkkaarloo di reyante di reyante ba jeex tag moo tax baaxul ab rambaaj ab naafiq musiba naaru laay la ci dëkk musiba naaru laay la ci jàkk musiba naaru laay la ci quartier musiba naaru laay la ci koñ kër koñ bi yëpp la ñuy tas lépp la ñuy détruire kenn dootul ànd kenn dootul nekk mbokk lépp la ñuy yàq sunu borom subhanahu wa taala ne baaduhum min baad ñoom ñoo nuroo benn lañ lu tax mutashaabihun fi itiqaadihim ndax ñoo bokk pas-pas gis nga moo tax pas-pas lu jar a defar la pas-pas lu jar setal la lu jar a suuxat la lu jar a jëmbat la lu jar a toppatoo la balaa ngay am pas-pas bu bon naafeq yépp bokk pas-pas ñoo nuroo ay wax ñoo bokk ay jëf ndax seen mbir benn la baaduhum min baad yàllaa ko wax lan mooy seen melokaan mu ne yaamuruuna bil munkar wa yanhawna anil maaruf dañuy digle lu bon di tere lu baax allahu akbar kon kuy tëgg soirée fii moom ci fan la bokk dama leen di laaj ki tëgg soirée ak ki koy dimbali na na soirée bi xumb ak ki ko jox place bi ñuy tëggee soirée bi ñooñu fuñ bokk naa fekk lañ ah waaye ñiy jaay yére yu bon yi ay la lañ yaamuruna bil man bil munkar kuy jaay yére yu bon ki koy ñaw nag ñi koy sol nag ñi yor salon yi nag borom baal yi nag kon naa fekk bi ñu leen di génne Sénégal jeex na di est-ce que sax ñun duñ ci bokk kuy dégg lu bon yàlla ne naa fekk nga kuy tere lu baax naa fekk nga yaamuruna bil munkar loolu la yàlla wax bokk na ci melokaanu naa fekk lu bon dong lay digle waaye gis nga affaire bi boo ko solee yàq ak garaaw xoolal best la de qualité da jëfaay xoolal di ko taaral dégg nga de di koy taaral di ko rafetal best qualité première nangam bismillah waaye xoolal affaire bi nu la jàppee seetul nga xool ne pourtant wax nga dëgg de allahu akbar kon ci lan la yàlla nee na ñoo ñëpp ay naafeq lañ allahu akbar bokk na ci seen melokaan wa yow na xaw na anil maaruf ndeysaan lu baax bëgguñ ci dara lu baax day gene naafeq lu tax parce que moom comme du digle lu baax du ko def soo ko defee ci wetam dafay gene wu ndeysaan mosoon nañ am benn xale ndeysaan bu tudd Mouhamed xale bu ndaw day dugg ci jàkka ji asalaamualeykum wa rahmatulah beneen kii kii kii kii kii kii wala xale bugguñu dégg sax asalaamualeykum bi ñu dem ci yaayam ne ko gis nga yow kii léegi mu dee kii affaire yi muy incarné xale bu ndaw bii ay asalaamualeykum ay duma nuyu jigéen ay ay ay kii léegi mu dee wala loolu xale boobu noonu la génn ci sunna tey maa ngi koy séen ci média bi ndeysaan mu nekk ab journaliste di daw daw yu miiti ndeysaan allahu akbar yàlla nee na naafiq yi bokk na ci seen melokaan wa yaqbiduuna aydiyahum dañuy téye seen loxo bu lu baax xewee nii la ñuy def moom sama yoon nekk ci ñoom dañuy mer bu ñu wootee lu baax allahu akbar du ñu bëgg a bokk wa yaqbiduuna aydiyahum yumassikuunaha anil infaqi fi sabilillah buñ leen ne fi benn jàkk lañ fi bëgg non bañ jàkk bon y a ici de y a trop de allah akbar ici dañuy tere nelaw buñ ne daara ñu ne waaye ban daara sëriñ ñi di ay bandi boo ne alxuraan ñu ne la ban alxuraan loo wax rek naa feqi dinañ ci teg baat gis ngeen tey Sénégal ni mu yàqoo daanaka waxal lu la neex doo am benn bakkaar Sénégal yàqu gi mu yàqu waxal lu la neex doo am benn bakkaar ci mbon gi fu mu yem li ngeen di gis ni ci mbedd yi lu tuuti la li nekk ci boîte de nuit yi nekk ci internet bi subhanallah dugal youtube rek ay góor jigéen ngay gis ak ay giin kenn solatul yére dung ay soirée léegi taatu neen kenn du sol yére ku fay dem loolu moo am tey Sénégal te li ci garaaw mooy ñooñ ñëpp koo ci taajal micro wax bisimilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah maa ngi sant sama ñaari wayjur sama ndey ak sama baay ak sama sëriñ sëñ diw bilaay sëriñ yi bu ñu dee kenn ëpp leen responsabilité ci kanamu yàlla nga yor taalibe boo xam ne xam nga ne taalibe bi bandi la nga bàyyi ko mu nekk ci bandi googu démb dañ ma yónnee benn audio benn saay saay boo xam ne dafa seeti sëriñ bi sëñ bi ñu naa ko waaw xale bu ndaw nga danañ la ñaanal gis nga kii nga toog ci wetam mooy diw li nga am xamaguñu de waaye fi nga jëm moom ci kanam rek ci kanam rek Eh, ma ne wallaay waay bàyyi ngeen yoon bi da ngeen ko waroon wax tuubal génnel ci lii balaa ngay dee dem safara loolu lañ ko waroon wax waaye yaa ngi ca kaw yaa ngi ci kanam fii ku fi ñëw da nga yokk ndax ci kanamu diw nga toog yàlla daa xam diw yooyu ñuy wax fii moo amut billahi allazi la ilaha illa huwa yàlla xamul diw ana doomu nu ana jabaram ana jabaru luut ana baayu ibrahim yàlla xamul diw kuy xaar ki mooy diw yàlla faalewul loolu dañuy nax rek kenn ku fi dee bu fekkoon ne waa ji mun na dara na ñëw doo dee xam nga loolu mooy wax bi man loo ma bëgg-bëgg bu ma dee damaa bëgg nga ñëw nga dekkil ma bu ma dee naa ñëw ma ñëwaat continuer samay dars waaye da ngay ñëw waay waay waay oustaz dee na waay ñu jël sànni ji mbalit ñëwaat toog munoo ci dërëm lu dul min duwa niimu kan ko kay ma la naw ma aljanna teg affaire ba jeex tus lañ mënu lañ ñuy nax ku yeba jaamu yàlla gis ngeen démb xam nga ñoo ngi nekkoon coupe d'Afrique jamono boobu ñuy préparé coupe d'Afrique ñu ngi tëral fi benn néew fii fii kii toog lañ teg kees gi a ngeen néew boobu moom talul woon coupe d'Afrique biñ demee suuli ji ko ndax seetaan na match bi moom moom moo woon ci final bu mag bi gis nga loolu bu yeboo nit ñi bàyyi ko xel gis nga yii nii ngeen di gis ay coupe coupe coupe coupe ana fenkat yi waxoon ne coupe bi dina ñëw dugg leen ci internet bi ngeen xool fenkat yi sëriñ yeeg seetkat yeeg bo ay coupe bi kay coupe coupe bi kay moo ngi nii may gis ñëw na anamu ñi demoon ba pale naan Macky dina indi coupe bi anañu mun a fen anañu ñii duñu rus sax duñu rus billahi Sénégal bu doon ñi ay gor lañ duñ génn tey duñ génn ci mbedd mi nit ñi di leen gis ndax fen yi metti yi ñu fen peuple bi dëkk bi yëpp ñu takk ko ay verre de zone douze ne kuba ngi nii kuba ngi ñëw ana ko da ngeen ma wax ana ko bi ah indi wuñ ko da ngeen yaakaar ne coupe ay affaire u jinne la ay ñaan ni ngeen amee ay jinne la Algérie amee ay jinne ni ngeen amee ay sëriñ ñooñu ñooñu amee ay sëriñ ni ngeen amee buxaaba ñooñu ñooñu leen ko amee yéen ni ngeen nekk fi seen buxaaba yi def buxaaba Algérie yi ne ni ki may ko fenkat bu mag bi naan rey naa gëléem gi daggate naa leen ñoo ngi daggate naa leen boo leen daggate reer bi nga ko lekkee reesut bu dee da leen daggate saam leen ah bi mu ko toggee ne ñorut wala reesut ndax ñooñu yëlbu nañu ba gëléem gi kolewaat gëléem gi dugal bii bi ñu jël ko ba yóbbu ko mais ñun ban monde lañ nekk ban adduna lañ nekk dañuy bàyyi ñi rek fen guddi fen bëccëg te sax duñu rus ba pare ñoom lu nu wax lu nu gëm ko subhanallah mais ñun ban adduna lañ nekk Sénégal yi kañ la ñuy yeewu kañ lañ kañ la ñuy gis dëgg yàlla bi kañ dañ toog nii rek ku jóg rek fen ñu ne est-ce que est-ce que moo ko wax de i kii kii day gis de gisuñu dara dañuy fen ku doon gis nga xam looy réer bi ku doon gis gars yi nee nañ allaadu sa tawee ne ina nafa mu motaa koy xoore joomu gëlëm googu bu mënoon dara duñ ko rey yow gëlëm gi nga yaakaar boo ko reyee affaire yi baax nga rey ko fees ko saam ko ba pare mu naan yàpp yi nañ ko denc bu ko kenn lekkagum ba kub bi ñëw kon de du ngeen ko lekk ndax kub moom du fi ñëw waaw da ngeen dem jëndi coupe marché Sandaga ñëwaat ne coupe a ngi nii waaye coupe bee moom du fii la jëm si xanaa beneen année kon de yàpp boobu moom xanaa mbalit lañ koy yóbbu comme dañuy xaar coupe bi ñëw ñu lekk yàpp bi ah kon de àllaaxira ngeen di lekkee yàpp bi du rees lii ay fen la keneen ki moom naan waaw eh, coupe bi moom mais dama leen a rus rek pour ma indil leen ko mi dama leen a rus mais dinaa leen ko indil quoi dama ko dama leen rus ma leen ko indil waroon nañoo dem nag ne ko waa léegi anamu ah keneen di waat barke tew barke tew barke tew ko bi man de tey dama seetaan ba rus tey dama topp di xool vidéo yi dama mujj ne ma ne ma ne ma ne man lii man su ma su ma waxoon lii damay daw jël vol adama du ma tafsir si moo toogoon fii ne coupe bi day ñëw ñëwut kon kay di ngeen toog juróom-ñeenti fukki samedi du ngeen ma gis nii leen ko nit di waxee day ñëw ba pare di waat fekk ay feni kese la allahu akbar laa yaalamu alxayba laa yaalamu man fi samawati wal ard alxayba xoola yàlla lu mu teg ci aaya bi wa ma yaskuruuna ayaana yu ba gis nga ñii buñ dee buñ leen di dekkee sax duñ ko yëg ñu naan coupe day ñëw mun a fen allahu akbar yonente bi wax dëgg mu ne bokk na ci mandarga axiru zaman dajjaaluna kazzabun kullun yazamu annahu nabi mu ne laa nabiya baadi yonent bi nee na balaa àdduna jeex di ngeen gis ay fenkat dajjaalun la wax kazzabun ñëpp ay dajjaal lañ fenkat rek dëkk bi yëpp ay fenkat la koo wax mu ne maa ngi gis lu ñuy gis lan lan la ñuy gis ah ñu tegal la ay micro ngay waat soo paree yàlla na la tey tey laa lay fen loo xam ngeen li taxoon musaylimatul kazzab yonent bi doo ko lool daal gis gëléem mu ne gëléem la yàlla def ko mbaam bu yegsee ñu ne ko ah haza de himaar su gisee fas mu ne ah fas a ngi ne yàlla def ko mu ne ko muus bu yegsee mu ne ko muus ñu ne ko ah ana fas bi yonent bi doo ko musaylimatul kazzab kii moo daq fen ci àdduna bi léegi nag yéen musaylimatul kazzab ngeen yeb Sénégal gi am na musaylimatul kazzab yu bëree bëree bëree bëri du sax benn waaw wallahi war nañoo delluwaat génn suñu xel ci buxaaba yii génn suñu xel ci seet gisaanekat xanaa jànguñu gisaanekat lu ci yonenti ba man ata arrafan aw kaahinan fa saddaqahu bi ma yaqul yonent bi nee na kooku hadis ba ca jiitu mooy laa tuqbal lahu salaata arbaina yawman 40 jours bu julee yàlla du ko nangu beneen riwaaya bi ne faqad kafara bi ma unzila ala muhammad kii weddi na li yàlla wàcce ci muhammad barke laa ilaha illallah fekk day fen est ce que sax barke laa ilaha illallah war nañ ko waate ah est ce que loolu sox loolu dafa bokk ci waatu salafu saalih barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah ma vraiment man taalibe diw laa man diw laa gëm nangam nangam barke ku baa ngi nii fekk feni kese ba pare li doy waar mooy nit ñi dañuy dañuy làqatu ci suuf di joxe seen xaalis ndeke bu xaaba yi nekke bu ñu waxee da ngay gis ku bàyyi bu guddi woote orange mu ne wala mu wari gëléem gi jënd jënd ko foofu jëndal foofu gëléem gi xamu leen yëgu leen loolu ndeke gars yi ñoo leen di financé si loolu tax moo ñuy fen naan bu ngeen ma joxee saraxu nangam gisoon naa ku ne man benn laa nangam laa bëgg léegi sarax bi mooy ñeen fukki mbax ne ñeen fukki mbax ne mbax ne yu weex yi ñeen fukki mbax ne ñeen fukki mbax ne mbax ne 1000 francs ñaata la c'est que gars yi xamuñu dañuy dox ci kaw xelu nit ñi da ngay génne sarax waaw mu ne sarax bi lan la mu ne ko ñeen fukki mbax ne rek ngay génne xam nga du ko ne génneel xaalis waaye da naan génneel ñeen fukki mbax ne yu weex tal nag yu mel di la jéem a jafeel couleur bi soo soo ne ah waaw loolu téema laa jox rek nga jënd ko mu ne waa baax na wari ma ko boo ko waree ginaar la koy jëndi billaahi du ko jënd ay mbax ne gisoon naa benn waaye boo xam ne day faj yaaf yaaf ah xam ngeen yaaf bu sa bopp di metti ñu ne da nga am yaaf day bënd bakkan yi deret bi génn deret bu dee bi soo ñëwee mu ne la ñetti kilo yàpp ak 5000 moom laa koy fajee ñetti kilo yàpp ak 5000. gars yi kooku benn jour bu amee ñett ñu feebar ñu war a bënn yaaf lu muy am yàpp ak 15000 loolu loolu mënul supp loolu amul pombiteer amoo ci macarona amoo ci poobar amoo ci loolu da nga lekk supp wala doo lekk supp ay feni kese ah fekk da ngay jël bant bale rek wala puso daal di bënn yaaf yi déedéet ñetti kilo yàpp ak 5000 di nax nit ñi rek nit ñi nañ yeewu ngir yàlla yeewu leen nit day am xel kii di la wax ne nangam nangam dama koy indi xoolal moom ndax indil na boppam tey ku fi am alal ci bu xaaba yi rek sunu alal lañ jël ba am alal di la nax ba am alal ndax parce que tey booy seet ah 300 personnes laay jël par jour ku nekk 5000 ñaata la ku nekk 10 000 ñaata la par jour ñu ñu jaay ticket 10 000 ticket 10 000. yéen jàkka jëpp tey su ma leen jaayoon ticket 10 000 tafsir bi ku ñëw da ngay doon ticket 10 000 xanaa tey dina am lu ma reere de ah voilà su ma ko defee ñaari samedi fukki samedi ñeenti at léegi ma romb leen fii salaamaaleykum ceeb di tàkk c'est loolu ñuy naxee ngay seet ticket 10 000 fii kii nu mu mënee seet gars yi rang nga gis ku jógee ba Tamba damaa fanaan si ndax damaa bëgg mu teel maa jël ndax affaire yi day fees nit ñi di rang di génne di fen rek dara lañ xamul ku ci mënoon dara doo feebar say mbokk duñu feebar doo deele ah doo am lu la naqari yàlla nee na kenn xamul asamaan ak suuf lu fiy xew ku dul yàlla li leer na laa yaalamu la wax man fi samawati wal ard illa allah léegi kay leer na kenn xamu ko yàlla mooy alimul xaybi wa shahada yàlla dafa wax lu leer kumpa kenn xamu ko suba luy xew Sénégal dañuy kubbi noo kubbi day ñëw kubbaa ngi nii léegi anamu billahi kubbi day ñëw nga waat nag war ngaa war ñetti fan yéen ñi waatoon billahi ne kubbi day ñëw bu yow ngeen xam ne ñetti fan ak seen kaw ndodd ngeen war a woor pour yàlla baal leen seen waat boobu ñi fenoon nag ñoo xanaa ñu tuub fenkat yi xanaa ñu tuub ñoom gàcce ñu moytandiku ah lii lan la fan lañ jëm nañ delloo si xelu xelu nit ñi nañ leen jaamu yàlla nañ leen gëm yàlla mën ngaa faral mën ngaa bëgg waaye da ngay ñaan yàlla da ngay ñaan benn waaye day ñëw sama kër mu ne ma xoolal Algérie bi ñuy génn ci Versailles yi dañ doon ñaan mu ne ma xoolal ñëpp a ngi ni di ñaan ma ne ko waaw ñun nag moom ay ay gëléem lañ yaakaaroon ak ay nag ak ay bukkeeg gaynde ak ay gëléem waaw mu ngoog ñun loolu lañ yaakaaroon gëléem gi dana indi dana indi coupe bi ndeysaan perte nañ gëléem perte coupe perte yàpp yàlla mu ne lii lépp nasullah dañoo fàtte yàlla gis nga de nasullah dañoo fàtte yàlla rek moo tax ñuy def lii nasullah fàtte yàlla ku am ku toll ne yàlla kay ñaan ko waaye benn waaye doonoon wax ne waaye ndeysaan nga am problème amoo looy ñaan yàlla julli ba pare allahumma yow yow inni uridu kub xoolal yow nga julli amoo looy ñaan yàlla taxaw yow yàlla man kub laa bëgg kub bi kub bi yàlla kub bi démb romb naa benn waaye muy jàng ah bi match bi di waaj a fin ma nekk ci taxi ma romb ko mu toog moom kenn cundung ci ma dem di jàng ma ne kii kii di coupe égaliser la bëgg ndax kii ni mu concentré wu ci li muy jàng te du alxuraan de mu ngi upp te toog moom kese ci digg benn mbedd boo xam ne ma ne allahu akbar kii de coupe la bëgg égaliser waaw il faut ñu delloo si xel yi xam ne lii pola lii fo kese la dañuy nax fola tubaab bi ñooñu orienté rek du ñu liggéey du ñu gor du ñu yàtt ñoom dem nañ bu yàgg ñu ñu toog fii di fo xoolal démb réew mi nu nuñ ko pénaliser fan yii yëpp démb am na malade yoo xam ne sax hôpital da nga yegg si ñu ne dañuy salaal mas di teg ko fële sonale ay malade ay jigéen yu am doom wooy wooy ñu dimbali ñu dañuy seetaan billaahi wallaahi taala ay jigéen di la woo man démb bi tuuti ma tuuti sama doom ji dee ñëw naa kenn faale wu ma. soo bee jigéen léegi la génn sama kër xam naa ci timis la jullee àll léegi li ma problème mu doomam dëkk bi jëm xaafisu Quraan fan lañ jëm fan la dëkk bi jëm fan lañ jëm loolu ñun ñëpp ñoo ko war a xalaat ndax dañuy toog nii rek dëkk bi di yàqu suñuy njaboot ñoo nar a yàqu suñuy njaboot suñuy njaboot. jekk fi benn jour ñu ne doomu imaam góor jigéen la doomu sàmba doomu lii doomu lee doomu lële ngay rey sa bopp fekk bi ngay tabax am na ñu nekk ci suuf di gas dugal ko ci ay yu kenn xamul ay il faut ñu yeewu il faut ñu conscientiser peuple bi xam ne caaxaan yi waruñu leen cee orienté ba nit ñi def ko lu kenn xamul démb dama jékki-jékki ma ne lii lu baax de ndax dama génn rek ñëw fii gis col gu bon gi xale yi jigéen yi col gu bon gi ñu ma ne lii yàlla da koy xool sax jéppiñu ku la gën a mën a dangal génne awraam yi ci biti yow kay booy ut dara sax da ngaa war a toroxlu ngir nga am ko waaye ngay ut dara di dangiral ci kanamu yàlla di jaay lu bon ba pare naan lu bon naa naa ko am yàlla da lay jéppi kenn du ut dara di ci wane ak mbon waaw billahi wallahi taala il faut ñu defaraat jikko yi il faut ñu xoolaat sunu melokaan yi il faut ñu yaraan njaboot gi il faut ñu delloowaat jigéen ñi ca jigéen ñu baax ña ñu royloo leen waaw. mais buñ bàyyee nii peuple bi société bi yàqu ñun ñëpp conséquence bi dinañ ko dinañ ko dund gis nga bu nit ñi dëkk bi yàqoo ñun ñëpp wallahi yàqute gi dinañ fekk suñu kër benn borom xam-xam dafay misaal société bu yàqu mu ne mu ngi mel ne tuyau bu toj ndox mi di wala ngaan di dem. au lieu ñu dem defar tuyau bi ku nekk yor sa peel taxaw sa bundu kër naan ndi ndox mi du fi dugg loolu dund naa ko gunaas yéen ñu dëgg gunaas dañ daan jël ay saaku ku nekk taxaw sa bundu kër tóoj ba mu fees ndox mi naan vrr di romb vrr benn bis man maa ngi taxaw ci buntu kër gi de ndeke ndox mi jaar na ci ginnaaw ba daaneel miir bi dugg ci biir kër gi maa ngi taxaw ci buntu kër gi di xaar ndox ndeke néegi fees nañ gis nga loolu mooy wax ji da ngay taxaw fi naan eh fekk yow jaar nañ sa ginnaaw rocc nañ ci sa njaboot wala rocc nañ sa soxna wala rocc nañ sa benn mbokk yow nag yaa ngi taxaw ci buntu kër gi naan ba kenn yegg si fi rek fekk jël nañ la bu yàgg loolu mooy loolu mooy melokaanu ñu bon ñi ixwaan yi sunu borom ne dara taxul ñu mel nii lu dul nasullah dañoo fàtte yàlla ba ñu fàttee yàlla fa nasiyahum yàlla fàtte leen gis nga réew mi yàlla da leen fàtte yàlla du leen fàtte sax waaye da leen bàyyi ñu dunduk seenu mbon yàlla amatul ci ñoom affaire réew mi dañoo war a tuub tuub lañu war a def tuub 95 pour cent musulman ngay jaar ci mbedd yi doo gis l'islam mais dañoo war a tuub 95 laa wax pour cent musulman ngay romb nga mel ne ku nekk dëkk yahut doo gis dara lu baax doo ko dégg ngay seetaan télé yi ñaata télé ñoo am Sénégal ah ñaata la nga seetaan télé yi ba mu jeex tak ci 30 secondes boo xam ne nii ngay def da ngay zappe di zappe di zappe doo gis diine doo gis lu baax jigéen bi présenté journal sax wala muy def théâtre sax doo ko mun a xool ndax lu bon li mu sol ak mbon gi muy gi muy gi muy jàllale foo xool awra ngay gis mara benn oustaz ndeysaan ñu ne ko télévision ndax dagan na mu ne télévision yëkkati ba ci kaw rek dóor ci suuf mu rajo xaw moom atte boobu la ca joxoon donte ne du loolu mais xolam a jeex rek ndax loo xam da nga koy xool doo ci gis lu baax moom waroo koy indi sa biir kër am na benn borom xam-xam buy véhiculer benn message lamma daxala télévision fii bayti bi télévision duggee sama kër mu ne la kër ga yàqu tey ku am télé sa kër bu yeba nga xam ne élément bi détruire sa kër yaa ko fa indi bu yeboo kon nga contrôlé ko bu yeboo nga taxaw bu baax a baax bu yeboo nga xam lu ñu fay taal ak lu ñuy seetaan ak luy dugg ak luy génn bu yeboo nga conscientiser ñiy seetaan télé bi loolu mooy wax ci langage yi comportement yi jikko yi col yi lépp télé bi moo koy changé benn borom xam-xam nee na damaa tabaxoon cinéma suñu dëkk cinéma la fa tabax cinéma ñu ne diwa bon indi na cinéma ci biir dëkk bi damay bañ a tudd turam mu ne cinéma laa tabax foofu ca biir dëkk ba dëkk bu mag la woon dëkku lislaam mu tabax fa cinéma gars yi ne diw moo bon cinéma la fi indi mu ne ñu toog ay at télévision xew ku nekk dem jënd télévision dugal sa biir kër mu ne ma ne mu ne ñu ko doon wax ma leen di fëgg par porte asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam mu ne ah man ne damaa indi woon cinéma ngeen ne damaa bon yow li nga indi sa biir kër lan la mu ne paay na pat gis ngeen cinéma ak télévision benn la bal sax cinéma moo tane télévision lu tax ndax cinéma yaa koy fekki télévision yaa ngi moom a dëkk munoo cee mucc cinéma boo amul paas télé nag ah te nag da ngay gis kenn si ko xam ne booy grand écran laa indi waaw grand écran di ngand ngandul grand écran buy tas sa kër man kay ut ci lu ndaw 2 millions laa ko jëndee luy tas sa kër ñu def attention bu baax ci li ñuy dugal suñu biir kër yi borom bi nee na innal munafiqin ñii di ay naafiq humul faasiquun ñooy kàccoor yi gis nga ndeke naafiq mooy kàccoor kon gis ngeen ñi ngeen di gis fii ci dëkk bi saay saay si ñëpp ay naafiq lañ moo ngi nii koo ci ne yàlla mu bañ koo ci ne diine mu bañ te ku ci waat daa de waati sëriñam billa barke laa ilaha illallah yépp ay naafiq lañ yàlla nee na innal munafiqina humul fasiqun naafiq yi ñooy kàccoor yi waada allahu almunafiqina yàlla dig na naafiq yi yu góor yi wal munafiqaati ak naafiq yu jigéen yi wal kufaara ak yéeféer yi lan la leen yàlla dig mu ne naara jahannam lii rek doy na bu yàlla yemoon fii rek doy na waaye mu ne xoola xaalidiina fiiha fa la ñuy sax éternellement duñ génn ci biir safara hiya hasbuhum yàlla nee na la ñu jëf safara rek moo ci doy amul leneen amul leneen lu leen war a compenser lu dul safara loolu dong moo leen doy bu yàlla yemoon fii xanaa tëkku la mu ne wala anahumullaa yàlla rëbb na leen lan mooy rëbbum yàlla mooy abadahum an rahmatihi yàlla sori na leen yërmande yërmande duñ ko jege mu ne walahum azabum muqim dañ leen di mbugal mbugal mu sax moo xam ne du jeex lii mbokk yi xoolal nu mu grave lii waxu kan la ah lii waxu kan la waaw tey jii mbokk yi sunu Donald Trump tëkku woon ñun waa Sénégal ni yéen mën ngeen di fontoo dinaa leen nangam nangam mu di- mu jël terme yu mel nii ñun ñëpp kenn du nelaw guddi voilà ku tëdd yëpp nee naan sama fenêtre bu leen ko tëj naa yaa ngi xalaat bomb yaa ngi naaw naan nii allahu akbar wala buur bu toll na yàlla tëkku nii naa fekk yi safara lañ jëm yu góor ak yu jigéen yi yàlla yemul foofu mu ne loolu dong moo leen doy loolu dong laa am ak ñoom fii affaire da amul leneen dencaluma leen fii ci àllaaxira lu dul safara yàlla yemul ci loolu mu ne soril naa leen yërmande yàlla yemul ci loolu mu ne dinaa leen mbugal mbugal moo xam ne day sax éternellement muqiim lan mooy muqiim mooy day sax day continuer du dagg alquran sax dana innal munafiqina fi darakil asfali xoola safara ni mu tàngee fan moo gën a tàng ci biir safara yàlla nee na nafiq yi ñoo fay nekk kon nafiq musiba la yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko loolu moo doon dar su tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu